leen siyaar mbokk yi ñu amaan mbégte yéen ñuy suivre seen lamb TV Fekke TV tey ba tey ñoo ngi fii waay dégg ngeen Balla Gaye 2 déclaration dégg ngeen Sa Thiès déclaration ba tey maa ngi fi ak Badara bu Sa ak sëñ Mbàkke maa lay siyaar bu baax di la bëggee di la jox sa wàcc wàccuwaay. delloo naa la siyaar moom nami moo frère. ci loo ne. waaye sant yàlla rek. fi mu ne nii moom neex ngeen a par rapport bër ki démb diggante vendredi ak jeudi moom yeneen kanam ngeen yoroon. waaw mais gannaaw ban sant yàlla rek di julli ci yonent bi di sant bu baax a baax euh, suñuy ñaari waajur di sant Serigne Touba Xaadim Rasool euh, du nuy waa adduna du nuy waa Sénégal waa mais loolu c'est normal ndax euh, làmb moo nekk loo xamante ni yow mi nga xamante ni macha allah yaa ngi ciy dem fu ne di ci gis lu ne wala nga ciy dégg lu ne làmb moo baaxoo noonu mais kanam yooyu nga gisoon ak kanam yi tey mënul bokk ah. waaw ndax xare boo ci daan mësaan a dem ci ñu xam ci ñu xam tey ji histoire xam mag ñu njëkk ña mhm. daanan tëju fukki fan ak juróom sax duñ génn lépp di ko waajal nag te làmb nag moom moo xare mhm. li ne li ne li ne li nu wute bariwul de waaw mi ngi noonu nag loolu rek la woon waaw waaye fi ne nii mën nanoo bokk lek mën nanoo bokk naan mën nanoo bokk tëdd mën nanoo bokk def lépp waaw làmb moo sévère daal macha allah mi ngi noonu làmb moo sévère maa lay siyaar baax baax di la bëggee moo doon de ngi doon ziar. xanaa saa da nga doon pare combat. man combat laay pare. <laughs> seex bu rek rek lay pare. non combat bu neex ak yaakaar nga ne yaa man de mënoo de. non am na tamit loolu. loolu ci nekk sax di ci wax. seex mbër la woon. non kooku du ñu du ñu du ñu ay kii sax man ak moom. mi ngi ci non si ne. maa ngi sant yàlla ba baax. yaa ngi si waaw. naka tey. sant yàlla bu wér-wér. fi mu ne firi nga nice. man chaque jour damay firi ma dox naa la combat bi avant avant nga kii ban ah, ban daje man ak yow. ci autoroute bi ak tey jii nii bokkul. wala yow ak Sa Thiès waaw mais wax naa la ko ndax moom la nga ma di kër di man la loolu pare naa dañu dañuy am doom bu soobee yàlla. Mm. jeex na am nañ dem kay jeex na ñu ngi préparé leneen. macha allah préparation yi nan la doon demee ci mbër boo xam ne bëri na premier janvier yàlla jox ko defet ñëpp ne Balla parewul nan ngeen préparé ba indi benn état de forme bi ngeen andi dimanche. waaw mais xale la xale rek mooy liggéey yaramam di baax yaramam di am doole. Mhm. waaw xale la de waaw. lan ngeen ëpp lu ngeen doon entraîné ci combat bi din yi suuf si école bi musculation bi. kooku entraîné na lépp physique na contact na yéeg na din def na musculation boxe na def na lépp. Mhm. combat bi metti na waaw mais loo ci gis moo liggéey moo tax moo am ndam. waaw. tollut benn moment nga tiit ci combat bi. mosuma ci tiit benn côté ndax ki ñu àndaloon am na jom ko mm. mm. mais bi leen giri njëkkee door bi yéen door dóor gili moom door ci biir bi door ci biir mu génn dóor leen gis duraan ngeen kaaw foofu moom tiitoon na. mais dafa kaaw après moom tam dafa dóor giri giri kaaw def trois bi. waaw ah, waaw ci yi. waaw jeex na. benn ak benn. <laughs> benn benn la après mu ñëw def plus bi mu jeex gagné. ok. ok allah lan nga koy wax comme dugg na ci combat bi coow li bëri na Gris Bordeaux jëlee na ci dafet lan ngeen koy wax comme làmb ji jeex na. non moom day moom xam nga mbër mu mag danga koy bàyyi mu nekk ci lim ne concentré wu waat jeex na. te mu ngi ci day reprendre ay entraînement am ndax bi mu xëyee suba dafa entraîné jege jeex na. waaw mhm. ah. macha allah am na sol lool bi mu jeexee rakk ji Gris 2 dafa yëkkati ay kàddu ne bàyyi daf ko saaga te loolu rafetlu ko dara yéen tamit lan ngeen si wax. waaw mais mbër moom ñi nga àndal lu nekk la ñuy wax loolu kese la làmb la làmb moom saa boo perdee gars yi dañuy wax fii ñii di wax fële parce que day am quoi mënta ñàkk dinañ ko comprendre loolu ndax xam ne noonu la ko waaw. mais du ngeen jégalu bu dee saag. waaw lu am lépp rek ñun en tout cas ñu ngi leen di ñun en tout cas ñu ngi leen di encouragé wax dëgg yàlla di leen masawu di leen di wax nañ dem liggéey rek làmb la Balla Gaye daan na Gris du gàcce waaw kon kay jeex maa ngi ñëwaat ci yow sëñ Mbacke. waaw yaakaar naa ne làmb ji dafa jeex. Gris 2 def na benn sortie nee na li nga xamante bi ni Baye Ndiaye yëkkati na ko caatu yaraax Baye Ndiaye na ko wax ko ko wax ko magam neexu ko dara te aussi tamit rafetlu ko ndax làmb nit ki boo ko daanee danga ko war a encourager mais waroo ko saaga te moom nee na saaga la man li ma dégg boo waaw avant tout may féliciter sama xarit Balla Gaye numéro 2. di encourager Gris Bordeaux. Ah, waaw bu fekkee ni euh, euh, bu fekkee ni Gris dafa wax euh, loolu man man naa ni sax jaru ko woon daal. ndax lan. waaw li tax jaru ko ndax Baye. ak Gris Bordeaux seq nan lu ne. Mm-hmm, man mi di wax yow. Baye suma frère la suma xarit la. waaye Baye li mu seq Gris Bordeaux sax seq kook man. incha ma am lu ma ci jàng tuuti rek. tey bu fekkee Gris Bordeaux moo am ndam. waaw ah. da bu génnee dan naan jéggal bu génnee def sotti dan naan jéggal nan Baye Ndiaye. ok. moo toll foofu nangam ak nangam. te baay pourtant waxtaan nañ ci. li Balla Gaye da wax léegi rek foofu laay delluwaat ndax benn kàddu bi la. Baye yarewuñ ko saaga baay mosoo gis mu wax nit lu ko naqari. kon li mu expliqué dafa leer xamoon naa ni dinaa la dóor daan la ba toog sa kaw. ah la ko wax. loolu la ko wax. loolu la ko kon nag euh, Maodo man bugguma nit koo xamante ni tey par exemple euh, da ngay xool li rafet sax nga koy wax di ko defar ndax euh, yàlla moo ne rëbb naa ko yéefit na moom jàng na alxuraan kon am na loo xamante ni ak ni ma xamee Gris Bordeaux ak estafam loolu sax est-ce que bi mu koy wax moom yëg nañ ko ndax làmb la woon jeex na day jeex. est-ce waxu ko li ko bàyyi wax parce que Maodo tamit ñëpp xam nañ ko ci nitu kàddu. waaw gën a jege gën a yay duma ko weddul loolu ndax ba mu koy wax xawuma fekkewu ma mais Gris mhm. est-ce que dina wax ni dina dina dem ma wax Maodo ne ko bàyyi daf ma saaga. ok dina ko ko wax ndax foofu man boog gëwuma ne saaga am na fi sénégalais yi gëmuñu saaga dafay am. ndax nag benn lay rek pàq la de. waaw ah, loolu de am na leer na moom. sunuy lan may nuy de passage euh, Galas Ndiaye. Mhm. seexu yàlla bi suma xarit la. woo na ma félicité ma. ma encouragé ko. Mhm. ñoo bokk ñoo bokk Sénégal quoi. yàgg làmb nag moo yàggoo tey ji yàgg ngaa dégg ñu ne ñaari ndamay dugg mais benn ay génn. Gris Bordeaux champion la. Gris Bordeaux Gris Bordeaux Gris Bordeaux la. Gris Bordeaux ku ne nangul na ne champion la mais doo doon bëri ndaanaan nag. loolu moo waral li xew lépp bi bi ma amee. sama waa ji lijjanti boppam. ba keroog yàlla di ko may ndam. waaw ma koy encouragé bu baax na Gris Bordeaux waaye di ñaanal sama waa ji hmm. yàlla na ko ndam li jëg ba ay combat yi nekk ci kanamam yëpp yàlla may ko ci ndam ci barke Xaadim Rasul jaajaf mi ngi noonu seen Mbacke la lan kay tàggoo fi mu ne nii moom nice waaw xanaa di gërëm waa àdduna di gërëm waa Sénégal di gërëm monde entier waaye di gërëm mention spéciale Lamine fay moom nga xamante ne moo nekk école de lutte Balla Gaye di gërëm tamit waa école bi yëpp waaw kaw ba suuf di gërëm tamit ki nga xamante ni mooy baabooy ak soxnaam comprendre nga di gërëm Sa ah, di gërëm euh, Badara doomu yaay Sa di gërëm waa àdduna di gërëm waa Sénégal ñëpp waaye nag di gërëm suma xarit Boucher Këcëb ndax combat bi man moom dafa am luñ ci tàmbale woon di dox ba combat bi di jeex ba keroog yàlla dina may ndam yàlla yàlla def ci réew mi jàmm yàlla def ci waa Sénégal jàmm yàlla na yàlla def jàmm daal. macha allah mon frère kontaan naa ci yow. jaajëf mi ngi noonu sëñ Mbacke la yaakaar naa ne dañ fee am benn gan bu mag boo xamante bi nii ñëpp a ko xam ci réew mi muy Samba Ka borom rang rang rang borom Afe Jolof tey nag mu ñëw fii ñu dajeeg moom Kër Balla Gaye ginnaaw ban la nuyoo jox la sa waay bu baax a baax amaan mbégte ak contentement parce que man mii di wax a yow am naa TikTok des fois may seetaan danga may reeloo man ak sama soxna man la nuyu bu baax di la siyaar. waaw delloo naa leen nuyoo bi di leen di leen siyaar yéen it yéen journaliste yi. man Modou Anta. Modou ant bu delloo naa la nuyoo bi. Mm. Mm. ci ne. sant yàlla suñu borom. lu waral tànk yi tey. waaw kanaa ñëwoon seet Balla rek. Euh, ndax victoire bi mu am rafet na parce que ñun ay doomu Jolof waaye ñun moom rek la ñuy bëggee toujours wallaahi moom rek la ñuy bëggee chaque mhm. waaw kon Balla mooy sa waaw man moom mooy soo mbër man moom moo tax may seetaan lamb sax mën naa ne wax. combat foo ko seetaane. combat bi sama kër laa seetaane. Mhm. Mhm. nan nga doon xanaa ne ko fa di rang-rang ak di yéeg ci kii bi soxna si di la téye. waaw bim bim nag. waaw bim roppoo rang naa. <laughs> bim roppee. waaw kaw naa na kawoon naa foo tiit waaye xam naa ne. bari suuf lay jël quoi. bari loolu moo tax. bim roppee nan nga ko defee nga répété répété waat ko fii ñu dégg. waaw bim roppee dama def rang muy maj rang mu si ropp bi la. rang si tànk la jëm. <laughs> Mhm. macha allah am na solo tey lan nga gën gis ci Balla Gaye ba tax nga naw ko la yan qualité nga gis ci moom. ba yan nga gis ci moom ba jël ko def ko sa mbër. Mm-hmm. waaw xam nga nit affaire loo gis rek góom-góom la moom defa góom boppam. Mm-hmm. lu mu dugg rek da si dem bu mu jeex. Mm-hmm. waaw loolu moo tax man ma gën koo new. macha allah yaakaar naa ne dinañ la féliciter ci liggéey bi nga xamante bi nii ci nga nekk. parce que ñun yore nañ micro. mais yaakaar naa ne mbir mi kenn ku nekk mën naa liggéeyee fu ne yor nga sa téléphone yaa ngi ciy def liggéey bu am solo. yan yan yan yan jafe nga ciy faral di waaw jafe-jafe yi bëri na ah, mën naa wax ne bëri na bëriwul parce que eh, da ngay gis koo xam ne jóge fale di ma critiquer di ma wax lu ma neexut waaye loolu lépp du ma naqari parce que damay xam ne aar bi moo ko waral mm-hmm. loolu moo tax duma si gis suma duma si métti lu dara daal mm-hmm. de nit ñi moom buñ la kese bu bëgg-bëgg nañ mm-hmm. waaw am na ñuy xam ne dañuy wax ne ah kii boos bi commencé man leen euh, xam naa loolu ngeen gis rek waaye man sax suur sama téléphone ko xool nga xam ne ba léegi maa ngi ba léegi. Mm-hmm. incha allah sa dugg si Dakar bi nga dugg si ak nañ la accueillir nan nga koy dundee. waaw boobu nekkoon na si man dundin bu neex nag. Mm-hmm. dundin boo xam ne tim loo xam ne neex na ma daal parce que dama gis nañ ma terale mm-hmm. liñ ma xare euh, jàppale ma lool nag. waaw ñoom jàppale ma lool sax. Mm-hmm. lan ngay wax sa soppe yi nga xamante bi nii dañ lay bëggee ci réew meeg ci bitim réew ñëpp. waaw kana di wax ne di leen wax ne maa leen di gërëm di leen sant rek di leen ñaanal yàlla yàlla jàmm wàcc seen kaw waaw. Mm-hmm. ayca rang-rang bi moom mënta ñàkk rang xaw ma ci kan lay doon ci Badara lay doon wala ci Balla gay lay doon kii mooy xëpp Sa Thiès gàllaaj Badara. Mm-hmm. rang bi fan lay doon tey. waaw kon nañ ko def si badara mi xam ne moo yor gàllaaj bi. waaw kon nañ ko daa war a tàng tey da ngaa sedd de lu xew xanaa victoire bi neexul. victoire bi neex na kay. neex na lool sax lool moo xam ne loola yëkkati boo indi la kay xam nga ne loolu neex neex mënu ko wees. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ayca maa ngi lay jaajëfal. waa jaay ngeen jëf. jaay ngeen eh, Badara yaakaar naa ne ci yow laay mujjee. waaw ah jëli naa Cheikh de jëli naa rek rek te yow tamit jël naa la mënta ñàkk parce que yaa gën a naqare jot Sénégal fu mala la wooyee nga ne maa ngi ñëw maa ngi dem fii. Reug rek nee na da ngeen a nangu benn sëriñam demoon ci benn sëriñam doon fa wut yatu gumba. ah man de xaw ma sëriñ bi muy wax de te saa gees dem xamul sëriñ bi muy wax. Mhm. waaw ñun yatu gumba taxul ñu daan am ko terewul ñu daan ñàkk ko terewul ñu daan bu soobee yàlla. Mm. yàlla dinañu may ndam incha allahu rabbi. moom dama laa jël si fii mu seetaan interview bi nee na ma jour ba na saa Thiès jël li muy jël def ko ci mbuus man Reug Reug maay foqati loxom jël reliquat bi def ko ci mbuus ñu jox arbitre bi ku daan jël yaakaar naa ne lool loolu moom nekk na loo xamante bi nii <laughs> yaakaar naa ne loolu nekk na loo xamante bi nii lu leer la nee na mbuus la ñuy jël def ci xaalis bi jox arbitre yi ku daan jël waaw léegi mbuus ñun bu ñu mbuus tamit ah saay bu leen neexee na ñu indi na indi xaalis bi yow nga jël ko une semaine avant ma jël xaalis bi une semaine avant. waaw une semaine avant. ñaata nga may jox yow. Ah, lu ñoom dinañ la ko jox. 4 millions. ah yow non dañoo soxla 4 million jëla wuy Sa Thiès. soxla wuñ na de. ko. Hmm. waaw. Hmm, hmm. macha allah am na solo lan ngay tàggoo ak lan ngay wax mbokk internet bi. waa mais di sant yàlla di sant ñi ñu doon jàppale ñëpp ñëpp ñëpp. yee di gërëm nag Pam Mama Fall bu baax a baax. Eh, ñoom ñëpp dañ ci doon jàpp. xam yee ñoom Andaw ñoom Masata Aziz yee ñëpp yoo xamante ne daal doon ko sonn ngir Balla Gaye am ndam rek vraiment ñu ngi lay jërëjëfe daal yee. jërëjëf Badara jërëjëf Mourane. jaajëf yaakaar naa ne mbokk yi mi ngi noonu tey nag sinuwaa bu mag bi laa àndal muy Serigne Ndour yaakaar naa ne mi ngi noonu si ginnaaw dafa tiitoon nag. dafa jóge voyage ñëw ñu naa koy combat Balla kay mu tiit nangu ta wax ak kenn mbay tol doo sa waajaa ngi nii Serigne Serigne kaay kaay Serigne Ndour <laughs> mbokk sin waay maa lay siyaar baax di la bëgg. mu doon maa ngi lay fay. si loo ne. waay sant bu baax a baax a baax. borom Yarax kañ nga yow ban réew nga nekk. Italie. Italie kañ nga jógee Italie. ah maa ngi fay jógee jeudi jeudi bële paase laa fa jógee. jeudi bële paase. Mhm. ok nga ñëw ma lay woo te bu ngeen nekkee ci diaspora bi Instagram bi fépp da ngeen di wax lamb nu leen neexee des fois sax ngeen wax lamb après làmb ji passé ñu yóbbu leen vaar mu méngoo même chose mais lan moo tax bu ngeen ñëwee ci dëkk bi gars yi di leen woo ngeen di kii. non du loolu parce que damaa ñëw bi ma ñëwee jeudi vendredi vendredi bi gis nga nu mu demee. vendredi bi da taw. waa samedi bi tamit gis nga nu mu demee woon tamit. waaw xam nga tamit maa loon ñëw si kër ñoom Omar xam nga am yi may dox yooyu yooyu xam nga xaw a xat yow tamit nga war a dem géejawaay jël papa booy jinne xam nga fekk ma nekk fii tamit xam nga am yu ma waroon dox quoi temps boobu nag moo taxoon euh, mënu ma woon a euh, génn quoi boo ñëwee arène ba tamit xam nga am si yu ma nekkoon moo tax mënu woon dem fenn quoi parce que tamit làmb làmb la quoi dañuy làmb ba mu jeex rek. làmb ba mu waaw. <laughs> dégg naa mbër ngoon Balla Gaye nee daa métti nga daw. non foowee nañ ko mais dugg ñu arène nañ ko foowee dem géej xam nga contact xam nga. comme te ñun ay doomu yaraax lañ xam nga comme ni ñu koy waxee rek waaw di préféré ne di nuyu sama doomu nday o soddu nga xam ne mooy man maay moom xam nga waaw di nuyu tamit euh, waa diaspora bi mbaytool doo tumaani ñoom abu seng xam nga gars yi ci groupe Balla Gaye bi tamit maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax ma ne Tony Ndiago Papa Arona abu tamit mu ngi fa DG xam nga waaw mu fa xam nga ak ñoom Omar Top xam nga ñoom Makumba gaa yëpp waaw waa Lutte TV tamit groupe Lutte TV bi tamit xam nga comme comme site yëpp benn la ñoom tamit maa ngi leen nuyu gaa yëpp waaw kilifa yi laay jiital rek ku mel ne grand Mamed Seye grand Babou grand Daouda mu jotali ko gaa yëpp quoi waaw di leen wax na tamit làmb moom gaa yi ni koy dundee foofu noonu gëm naa ne sax waa Sénégal dundee wuñ ko fii quoi parce que dañuy perdre seen temps duñu nelaw duñu def dara mbay tuddoo ay def ay live ay quatre quatre quatre la koy def ay waa temps la koy def di live di jël gars yi fii xam nga keneen tamit xam nga ñëw ñoom tumaane ñëw def live xam nga ñoom deev xam nga yooyu yëpp si bëgg làmb la ko waaw yaa ma gën xam. maa sant bu baax di la ñaanal jàmm xam nga waaw di féliciter Balla Gaye xam nga waaw di wax ne ñu jox ñëpp rendez-vous le premier janvier incha allah jarul muy bëri. le premier. waaw le ñun benn mbër ñu daan Pikine. Ali Baba Kumba naa ñun benn mbër ñu daan Pikine. ah mbër de Pikine relève ci relève yi ca la bokk. ñun benn mbër ñu daan Pikine. ñaari yoon. bi ëmma seen. léegi ngeen war a bëriwaat beneen mbër bi booy bu dansé bila la no booy bi num wuuf booy bi num dansé booy bi ñun mu ñu ñu daan ba xam moom daf da si daan kenn limal ma. booy bi ñu mu dansé dafa dugg géej waaye daan fi Akon daan fi Mbiis. Hmm. daan fi Sa Kajoor daan fi Guy gi daan fi Sa Thiès kooku faaw mu dansé. mais Balla Gaye Balla Gaye 2 mooy daliñ ko bi Balla Gaye lamb ci moom la dëppee. ci moom la dëppee. maa la wax lii. Ah, te bar bi baar victoire bee tax sa fit sa fit dal nii tuuti. <laughs> non ñun lu ñu wax ragaluñ ko bar bi sifflé. le na taxaw rek. vaara ngi fi de. kon dama moo topp du ñu laaj. Hmm. booy ñaa moo toog fu nekk laaj Balla Gaye 2. mais dafa prouvé. wax ma prouvé wul de. Mhm. yéeg na si ponkal yi. la fi daan ponkal yi ci kaw. Ah, ko ko fi daan. ah ko fi daan xamoo ko. Ah, daan de moom day baax ni Balla Gaye Gris Bordeaux. waaw. waaw wala wala mu mel ni Sa Thiès ak Nees. waaw mais dama ne. dama mel ni booy ñaa Sa Thiès. waaw dama ne luuri laa wax bi mu bëri da dageer. foofu Boy Niang amu fa ndam. la dageer moo daan. bi mu bëree waatee tamit ki xam te mooy euh, Tapha Tine moo doon génn saako yi cinq avertissement. léegi Balla Gaye 2 bi mu dajeeg Tapha nu mu demee. lool 2 juin 2013 la woon da ko duma daan ko. jërëjëf moo tax ma ne la. le premier janvier. na dëggal boobu arbitre siflé mu taxaw. Hmm. waaw ñu loolu lañu am lu ñu wax moom du ñu wax ak moom wax ju bëri quoi eh, eh. bu arbitre siflé eh. ne ko mu taxaw. te wuy ma ñun maamuñu de bu mu yooru. maamu leen bu mu yooru. waaw loolu la am si làmb ji. kon joxe rendez-vous le waaw maa jox ñëpp rendez-vous le premier xam nga gars yi ñëwaat stade bi fees ko arbitre bi siffle ñu duma ko daan ko ñibbi wasalaam. <laughs> macha allah yomb na trop tey moom takk na fit wi wax li nga xamante bi nii moo nekk ci moom muy Serigne Ndour doomu nday Balla Gaye 2 fi ne nii nag victoire bi da jàpp moo tax fi ne nii neex a jógee Italie wala France xam nga war a noppalu ma top ko di ko woo di ko woo te yëpp damay wuyu wax dëgg yàlla ci disponibilité bi maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax di leen jaajëfal yéen ñuy suivre seen lamb TV Fekke TV Aladji Makan ba beneen yoon jërëjëf